Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te ci bile jamono Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono la mburu bi tàngee fii lay doxale jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono Seneinfo International yéen a ngi ci seen deuxième partie Yoor-Yooru Seneinfo ñu amal ko ak suñu invité bii di Moustapha Diop nekk membre bu cellule de communication wu FRAPP moom nag la ñuy dalal tey fas ne amal ab waxtaan ak moom si mbirum actualité waxtaan tamit si lettre de protestation bi nga xam ne déposé woon nañ ko fële ca ambassade bu. Tunisie bu nekk fii ci dakaar ginnaaw bu kii di président tunisien bi te loon ay kàddu yëkkati woon ko teg ci deru nit ku ñuul si loolu yëpp dinañ ci ñëw ak moom parce que ni cee waxtaan waxtaan tamit ci mbirum euh, Hadjibou Soumaré di question yi nga xamante ne ni posé woon na ko jëmale ko ci kii di président de la République xam naa laataa may sori dama koy bàyyi mu nuyoo ñu daal di ko dalal daal di amal ax moom boobule waxtaan monsieur Diop Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoo ak internetu salaamaaleykum mbokku Seneinfo salaamaaleykum euh, téléspectateur téléspectatrices yi topp ci Seneinfo ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal di ñaan yàlla lu ñu fi wax mu doon njëriñu Sénégal ak njëriñu Afrique jërë ngeen jëf. amiin buur ma bàyyi la nga dalal ko rek ñu daal di tàmbali waxtaan bi. waaw euh, soxna Asel di la waat beneen yoon di nuyu itam mbokku internet di jaajëfal suñu invité ci nangu bi nga xam ne. nangu na ko ñëw euh, wuyu si ñu euh, wax nga ko dinañ ko laaj ci lettre de protestation bi nga xam ne ñoom waa FRAPP jotoon nañ ko déposé jeudi bi wala boog jeudi 9 mars euh, la ngeen ko déposé woon lu ko jiitu nag amoon na ay coow ci amoon mais finalement mu ngeen ko déposé ak it koppar yooyu ñuy naan ki nga xam ne moom mooy Marine Le Pen da ko njiitu réew mi Macky Sall da ko jébbal ay kopparte wi ab laaj nag boo xam ne kon Agib Soumaré moo ko laajoon la nga xam ne it am na ci ak it ñoom seen position wante lu ko jiitu man dama la bëggoon laaj d'abord ana nan nga jàngatee li nga xam ne xew na li nga xam ne moom mooy convocation euh, tribinal diggante procès ak Mame Mbaye Niang euh, ana loolu peut-être ban jàngat nga si am Moustapha waaw jàngat bi ñuy am lu ñuy tuddee ay tension politique euh, moi je pense que ni euh, il y avait pas lieu de poser des questions sur les tensions dina am wala do am il y a pas lieu quand on était dans un pays normal du am question question boobu warul posé wu parce que tax warul posé wu mooy yow askan wi ma lu ma dégg ñu wax ko ñetti yëpp c'est entre dans le cadre des euh, des rois et les et les lois yu am sañ-sañ yu am en vue la de la constitution parce que benn bi mooy meeting donc l'article 4 de la constitution moo permettre aux partis politiques animation euh, des militants donc notamment les meetings ci la bokk donc bu ñu respecté la constitution yooyu askan am na sañ-sañu def meeting te sans pour autant ñu poser question ba am que loolu seen sañ-sañ la beneen bi mm-hmm. aussi mooy euh, marche euh, je pense la article sañu dox doxu ñaxtu bu fekkee daf ko sentir donc loolu aussi war nañ ko mën a def dans le cadre légalement war nañ ko mën a def pacifiquement sans pour autant que ñu poser question ndax tension dana am beneen bi aussi mooy euh, le procès bi am je pense que le procès est public et aussi constitution sénégalaise aussi ak loi yi ko yi may na aussi à ce que askan Sénégal ku nekk mu dem mu fekk procès parce que c'est un procès mm. fermé donc ñett yooyu yëpp c'est c'est des choses yu xam ne ça entre légalement dans le droit de des citoyens boo xam ne war na ko mën a def sans ñu poser question que ni ndax tension dina am si on était dans un pays normal normalement mais parce que lu tax poser question ne tension dina am boo xam ne Euh, c' est normal en fait parce que bu dee état droit la ñu nekk mais dafa am ñoo xam ne dañu faa ñu àq ak yelleefu sénégalais moo tax nag loolu ñuy posé question ba xam tension dina am wala du am mais le problème mooy que ni président Macky Sall ak ak ñooñam dañuy noot askanu Sénégal dañuy noot euh, opposants yi dañuy noot képp koo xam ne dafa jug taxaw taxaw ni du du ak Macky Sall ak ak ak muy doxalee da lay noot fexe la xañ sa ay àq ak sa yelleef léegi àq sa dañ la may la constitution daf la mbax wax ne buñ la privé de tes droits et tes libertés fondamentaux da nga war a résister à mais tant que ñu leen xañ seen àq seen yelleef nag la euh, seen àq ak seen yelleef la euh, droit de de marché wax nga dëgg euh, constitution bu Sénégal la may na ko mais est-ce que tam tey le fait que bu bëree est-ce na indi ay trouble comme yenn saa yi demee noonu. war nañ ko def mais le fait que mu bëri bëri bëri récurrence boobu tam est-ce dem ba indi ay jafe-jafe indil jafe-jafe ñeneen. non s'il a quelqu'un qui trouble l'ordre public ici au Sénégal c'est bien le président Macky Sall boo amee kenn kuy trouble ordre public Sénégal Macky Sall la parce que Macky ak ñoñom ñoom ñooy fexe di xañ ñi seen àq sañ yelleef boo xañee àq sañ yelleef yaay trouble ordre public parce que man man j'ai participer a li ma participé ci manifestation mënu ma ko mënu ma ko cité mënu ma ko listé le nombre mosuma participer à manifestation autorisée boo xam ne viré na à un drame am na incident mosul am je participé à pas mal de manifestations masul am manifestation boo xam ne participé naa si mu autorisé boo xam ne am na drame donc manifestation interdite rek ñooy am drame donc yaa li se posé est ce que kon qui trouble l'ordre du Macky Sall parce que manifestation il faut encore ñu ñu ne doo demande autorisation mais da ngay introduire une lettre d'information parce que c'est déjà autorisé par la constitution à son article huit donc doo demander bi ngay préfectoral bi ngay demander dañ ko wax ne ko ñaari condition cumulative yi tax a tax nga interdire ñaari yi mooy mooy ban mooy trouble à menace de trouble réel à l'ordre public absence de force de sécurité maanaam yow nga ne da gis que trouble am na mais amoo sécurité boo xam ne euh, force de défense boo xam ñoo ko mën a ñoo ko mën a euh, en fait encadré mm-hmm. te dañuy gis ne manifestation autorisée benn pick-up rek bu police mën na ko encadré parce que gars yi ils sont responsables en fait ñu nekk ci manifester yëpp ñu am nañu kër am njaboot en fait am liggéey ñeneen ñu jàng et cetera ay responsable lañu amuñu benn lien di taal réew mi wala muy tëj wala dara dañu bëgg def suñu ay ak suñu lees suñu jàmm donc amuñu sañ en fait avantage yu ñëw di tëj wala di yàq mais bu ñu bàyyee suñu yàlla suñu leen je pense que du am problème mais le problème en est que mooy su fekkee di la a xañ sa àq say leef nag ki la bëgg a xañ kooku mooy kooku mooy troubler ordre public donc s'il y a au le président Macky Sall et son régime antidémocratique monsieur monsieur Diop euh, nga baal ma si manifestation yi vu que yéen li ngeen di manifester à chaque fois mën nañu wax ni dafa bëri appel yi ngeen di def mais est-ce que tamit yéen a ngi sóoraale ñi ngeen xamante ne nii par exemple seen manifestation bu amee ñu ngi war a jàll mooy comme fi nga jógee sànq si trouble à l'ordre public li nga am euh, tout le temps tout le temps mënuñu leen di leen bàyyi ngeen di def seen manifestation yenn saa bu préfet waxee comme genre mu interdire yooyu la. manifestation est-ce que yéen tamit yenn saa yi du jar ngeen di déglu tuuti lu ñu leen wax au lieu que tout parce que bu ñu defee benn constat forcing da cee am parce que à chaque fois ñu interdire comme wax nga ko sànq nangul naa la ko que droit la li ngeen di def mooy bind pour euh, yëgle loolu nga wax sànq donc mais parfois bu préfet interdire yooyu yooyu les manifestation lan moo tax à chaque fois ngeen di indi benn forcing. c'est-à-dire gis nga l'autorité préfectorale euh, arrêté am arrêté boo xam ne nekkul ci kaw constitution constitution moo féete kaw arrêté préfectoral beneen bi aussi autorité préfectorale dafa am nee nañ ko interdiction mën na am interdiction c'est exceptionnel mën na am mais boo interdire dafa am yoo xam ne moo war a tax su fekkee dafa interdire parce que loolu moo tax interdire gars yi mën nañ se soumettre à son interdiction maanaam ñaar yi mooy tax mu interdire et ñaar yooyu c'est des ñaar yooyu c'est conditions non alternatives mais cumulatives maanaam benn mënut a dem bàyyi moroomam maanaam ñaar yi dafa war daje dafa war a am menace de trouble à l'ordre public pare am absence de force de sécurité maam ñaari bu dajee mën na interdire mais le problème mooy dañuy gis ne autorité bu interdire ne menace de trouble à l'ordre public souvent lay brandir trouble à l'ordre public maanaam du brandir que ne amul absence de force de l'ordre amul a andi ci force de l'ordre na andi day mu andi maanaam bu interdire li mu andi ci force de l'ordre le car juste maanaam mënoon a doy pour mën a bu ko autorisé mu encadré ko maanaam bu andee tey cent force de l'ordre bu interdire mënoon a andi dix dix rek doyoon na pour bu ko autoriser et beneen bi aussi manifestation yi ñuy autoriser mën nañ ko def askan wi dox seen soxla parce que am na dispositif bu ko mën a permettre parce que mu encadré ko teewul nit ñi dox seen soxla sans dara a am donc manifestation autorisée mosul virer au drame beneen aussi mooy bu yaa amul nombre bu ñu sax saxal la constitution waxuñu ne dañuy manifester mois bi am nañ trente manifestations ou cinquante manifestations a chaque fois bu ñu ko sentir am nañ bu Euh, trois jours après mën naa dem déposer sama lettre euh, trois jours francs ma respecté les délais trois jours francs respecté les trois signataires ma dem déposer et le préfet amul sañ-sañ bañal war a nangul parce que lu mooy am na ñaar yu nga xam ne moo ko wax mu bañal ma ko ñaar yooyu dajawul donc war na ma ko mën a nangul donc amul nombre bu ñu war a mën saxal naa ñu lii ak lii ak lii loolu bu ñu ko defee c'est parce que président Macky Sall ak ñoom dañu bëgg dugal ci benn euh, gàmm boo xam ne mooy lan noppi leen fii war a yem parce que seen yuuxu wërta bee dépassé fii ñun nag dañuy que mi ngi continuer def li muy def dañuy continuer di yuuxu di continuer di xeex continuer di damaar la moom ci mi euh, ala kulli haal ngi lay jaajëfal ci euh, analyse yooyu kon euh, nga def maa ngi dugg rek ci li sax ci li gën a tax sax kon tey ñu invité la ci suñu plateau bi nga bokk ci communication c'est la communication bu front pour une révolution anti impérialiste populaire panafricain muy FRAPP jeudi euh, le 9 mars déposé ngeen euh, lettre de protestation ci ambassade bu Tunisie lu ko jiitu nag bëggoon ngeen def leen mel bëggoon ab sitting sax ngeen bëggoon njëkk amal ñu bañoon leen ko par la suite ci ngeen dem pour déposé li nga xam ne moom mooy lettre bi bés boobu antuwul mais finalement mujjee ngeen ko euh, déposé d'abord première dépôt ba ak coow li lan moo ko waral mooy si waaw parce que laata loolu dañu dem déposer lettre de protestation ci ministère des affaires étrangères euh, déposer nañu ko def ko ñu ko war a defee après ñu déposer aussi une demande d' information ci préfet pour une euh, pour un sitting devant euh, l' ambassade de la Tunisie pour protester contre les propos racistes xénophobes et négrophobes du président tunisien di loo xam ne je pense que ñëpp war nañ ko mën a ñaawlu ñun sax waruñu ci woon jiitu mais le président Macky Sall moo moom. que moom euh, c'est un lâche c'est quelqu'un boo xam ne moom oui c'est un lâche le président Macky Sall c'est un lâche c'est euh, la président Macky Sall mindaan la boo xam ne dafi nekk nekkul fi mindaanu Sénégal waaye dafa nekk mindaanu bitim réew ak doxandeem bi di bàyyi ñuy sàcc suuf Sénégal di bàyyi ñuy sàcc alalu Sénégal di bàyyi ñuy sàcc pétrole Sénégal di bàyyi ñuy sàcc Sénégal kooku nag bu ñu xasee tey Sénégal xas tay doomu Afrique moom du ko metti parce que kooku day jàppale ñuy xas Sénégal jàppale ñuy xas doomu euh, doomu Sénégal ak ñuy xas doomu Afrique di sàcc seen suuf di sàcc seen pétrole di sàcc seen gaz di sàcc seen euh, seen seen géej donc euh, ñun ñu taxaw temm ne loolu du fi am moo tax ñu déposer lettre d'information pour def sitting ci ambassade bu Tunisie ñu bañal ñu ko ñu ko bañalee ñu ne allez yéen nangu nañ parce que yaa ngi wax sànq ne parfois ñu tere leen dara ngeen bañ ñu nangu nangu nañ bi autorité def sitting nangu nañ ne def sitting waaye ala yowén kat danañ dem déposer lettre je pense déposer lettre moom lu yomb la maanaam muy mel ma ñëw lettre dem soo nga def ma courrier déposer lettre ñu déposer lettre aussi président Macky Sall génne sa police politique ñu mat trois mille bu accès ñun dañ tiit fekk ñu ñu taxaw duñu xaar ñu déposé leer ñu dugg ñu ne ñu doon dugg Euh, notamment am na kenn ci ñoom boo xam ne député la le camarade Guy Marius Sagna nga xam ne euh, ko daf saxal le règlement intérieur de l'Assemblée nationale feddali ko pour ne kenn mburu ko war a jàpp ci loolu fanagrase di ñu pamte euh, def garde à ba fajar ci lañ leen loo xam ne lu jéggi daayo la nga baal ma ci loolu mu ñëwaatee maam ci kaw Guy Marius Sagna bi souligné nga ko léegi maanaam léegi mën benn simple membre bu FRAPP léegi sati député la donte côté humidité paramètre wax nga ko mais est-ce que est-ce que est-ce que moom it euh, warul adopté ba léegi benn posture bi wane léegi nekkatul benn simple membre wala gisoo loolu. Fra amul Fra amul membre VIP amul membre simple. Ah, ah. camarade Marius est tout le camarade Marius est comme tous les camarades. amul lu ko distingué. statut de député waaw ñun gisuñu de député comme loo xam ne dafa kii député mën daanu askan bi la Marius lu mu doon def da dafa war a def lépp du parce que mën naa la askan bi askan bi ñoo ko en fait dafa mën il a toujours été député mais askan wi Sénégal tey ñoo ko wóolu jox ko ndombul député dafa war a nekk militant askan wi donc Fra amul député VI amul amul militant simple amul simple membre. Euh, Fra amul membre de république. non mais peut-être après. le fait ma définir la mooy simple membre ak simple ak membre VI peut-être. non non nekkul waxuma ko pour xeeb wala pour kii mais maanaam Guy Sagna tey on l'appelle Guy Sagna député.

c'est pas les personnes qui sont importantes c'est pas les titres qui sont importants au FRAPP mhm. li qui est important au qui arbitre amul contre l'impérialisme nous sommes un front contre les oppressions que ça soit doon ak lu mhm. mooy Moustapha a doon demain bu loolu amee dañuy taxaw xeex ak lu mën doon qu'importe bu mooy bu mooy porté donc nous c'est pas les personnes ou c'est les principes de combat li tax les valeur ou bien les principes pour lesquels nous nous battons. Mhm. tey bu menacé woo dañuy taxaw tey xeex. loolu mooy suñu ay principes loolu mooy suñu ay idées mais c'est pas les personnes les titres Marius c'est quelqu'un boo xam ne ak lu mën a xew bu bu xeex jotee day taxaw xeex. jàppoon war na jàppoon war na mën a changer stratégie. amul amul stratégie bi ñu changer stratégie bi am mooy xeex auprès des populations. te loolu yaakaar naa moom ci c'est se battre auprès des populations qu'importe le titre donc y a pas de stratégie à changer mm. se battre auprès des populations nag je pense bu nag dañ ma wax ne am lu gën ba dañu xam nag bu def loolu mais li ñu jàpp ne li moo gën loolu la ñuy def ak lu mën a xew maris loolu def keneen keneen looy def parce que frappe ñun loolu la ñu jàngal maanaam muy leen xeex taxaw xeex ci askan ci wetu askanu Sénégal bi ñuy noot bi nga xam ne noot nooteel boo xam dafa jógee ci doxandéem bi ak nooteel bi nekk biir réew mi nooteel boobu nag président Macky Sall ak nguuram dañ ay sàcc lañ di sàcc askan hmm. moo nekk taxawaay keneen ak keneen hmm. donc loolu moo am keroog loolu lañ def déposé ñu pamti pamtee ñu wax Euh, mënuñu tere en fait ñu def lu ñu war dem nañ déposé suñu lettre prestation loolu mooy waral ne ki trouble ordre public mooy Macky Sall parce que bu ñu ko bàyyee loolu ñu def ko samedi comme ni ñu ko defee jeudi mais dara du am jeudi on l'a fait d'ailleurs man position boobu laa si amoon naa ah. mais jeudi maa ngi wax sama confrère non peut être bu ñu leen bàyyi woon une première une première fois ñu déposé ko cool yëpp du am jeudi on l'a fait et dara xewul kenn xam dara xewul bu ñu ko defee samedi dara xew président Macky Sall ak ñoom dañu jàppee ay voyous dañu ñooy bandi ñooy voyous ñu sàcc yi dañu jàppee ñun ay ay ay ay

communication parler au téléphone xaw ma ak kii a mhm. euh, Macky Sall bu amoon ful la da def yeneen yi xam ne moom say naataangoom africain def comme notamment le président de la Guinée jël ay mesures phares condamné ko pare sa doomu réew yi nga xam ne ñoo ngi leen not foofu nga jël leen andi leen bu dee soxla nañu. am na am na am na ci wax euh, suivre nga liñ ci li ci li ci ambassade bi wax ak yooyu. noo de crise bi ñu mais cellule de crise ban cellule de crise on a ñoom xam nga le problème mooy askanu Sénégal bu ñu nangu ñu leen ci yoo xam ne cest en fait ça ne tient pas parce que bu fekkee defoo li nga def yow déjà la première des choses mooy condamné woo sax déjà les propos yiñ yiñ yiñ teg d'abord xam nga première des choses c'est d'abord condamner les propos beneen mooy rappeler ambassade de la Tunisie cest dire il faut les relations diplomatiques li nga bëgg ñu respecté la il faut nga respecté sa bopp pare il faut nga nawloo sa bopp il faut nga taxaw exigence sa bopp pour gars yi mën na la mais tey tam mais tey ngeen ko bëgg mais est ce que tam ngeen ko bëggee noonu rek yombeewul noonu tamit est ce que mën na jug rek tey dem li nga xam ne moom peut être bu fekkoon directement euh, c' est seulement leen concerné peut être mënoon nañu woo ambassade affaire laal notamment l' Afrique noire laal sénégalais. non d' na naa laa nga sénégalais mais dama ne maanaam tey bu concerné woon yaakaar naa des étés précis bu concerné woon seulement des kii sénégalais peut-être foofu kon dina jóg jël téléphone am. wala bu jëlee sax ñu rappelé ambassadeur gi ñu rappelé ñu rappelé. même bu ko même bu concerné woon la Guinée seulement maanaam bu concerné la Mali seulement comme mu mu pointé du doigt à un autre état euh, cest à autre pays africain noir boo xam ne nekku sénégalais. la solidarité sénégalaise exige à ce que ñu condamné ñu appeler ambassade am na loo xam soo ko defoon tey ji par exemple un pays par exemple nga def ko France wala nga def ko benn pays par exemple de l'Union européenne c'est toute l'Union européenne qui va condamner Union européenne bépp ñooy par solidarité même les autres pays de l'Union européenne dañuy condamner dañuy appeler sa ambassadeur par solidarité européenne donc par solidarité africaine euh, ñu bokk si donc ñun dañu war a jël ay mesures phares loolu mooy tax nga yàbb ma mën sa bopp nga may sa bopp fulla ak fayda sa parce que doomu réew dafa sacré en fait nit waroon nangu sa doomu réew en que ñun gis na bu ñu nekkee ci état mën nañ on dans un boo xam ne amul organisation bu ñu jël suñu ay dool dégg leen ñenn que ñooñu dañu bëgg ñooñu teewal ñooñu ñuy teewal du jëmmal ba képp ñu bëgg laal ñooñu taxaw euh, dox barrière suñu diggante ak ñooñu su fekkee ñu ñu ñu jiital bëgg ñu teewal ñu dañuy def lu neex bàyyi ñu bàyyi ñun laisse nous à la merci de des voyous et des bandes ñu ñuy ak di ñu wax lu nekk c'est-à-dire ce n'est pas l'appel donc qu'on s'organise dans un état en fait. bu ñu nekk comme si je comprends bien da nga doon xaar à ce que président def comme réewu Mali comme ni nga ko waxee sànq jël ay doomam indi leen mais ñu gis nañu ne ministre des affaires étrangères def na ay dispositifs. maanaam teg na benn numéro boo xam képp ku bëgg ñëw mën naa woote mu ñëw mais yow est-ce que xalaat nga ne suñu jëloon ñooñu fa nekk ñu jël leen indi leen est-ce xalaat ñi nga xamante ne nii ñu ngi fa nekk di fa am seen teraanga aussi vu que tamit wax nañ ne yooyu la violence laalagul benn doomu sénégalais. au besoin c'est-à-dire ñoom su ko mu ngi lay bañ a am di mais d'abord les relations diplomatiques xam nga avant ñu agsi ci consulat avant ñu agsi

Macky Sall nag bare nooteel la maanaam Macky Sall ñu nootaa ko nii la fi nekkal kooku mënoo xaar ci moom mu am tax mënoo am ci moom a xam Macky Sall xam nañ ko xam nañ koo xam xam nañ ne koo xam ne en fait moom nootaa mais en tout cas taxawaay bu looroon am bu fekkoon moom war na li mu doon mais malheureusement matul li mu doon mais diplomatique waroon na am waroon na jël des décisions sérieuses des mesures phares yoo xam ne saa ba dans le sens que ñu respecté ñu ñu xam ne lii duñ ko defati ba mukk mais tey bu ñu defee lii tey nga def na nooyal ñu xam ne en fait yow euh, c'est-à-dire. Euh, ngeen lancé ngeen woon fi benn bu ma juumul benn boycott boycottu produit euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Tunisie ana fan ngeen ci toll. oui ñu continuer tout sur l'opération nous appelons les Sénégalais di boycotter les pro les les xam ne c'est des produits tunisiens le jadida ak les autres produits yi xam ne c'est des produits. Euh, yoo xam ne c'est l'état néocolonialiste l'état euh, oppré oppresseur bu Tunisie moo koy moo koy moo koy moo koy produire ñu lancer aussi appel à tous les Sénégalais ñu continuer boycott boobu noonu parce que aussi la guerre économique aussi bokk na ci guerre yu am am solo yoo xam ne tey jii euh, tey parce que tous les tey réew yi nga xam ne tey dañ leen noot ci boo leen boo leen xojee ci économie rek dañuy gis dañuy suffoqué donc ñu lancer appel au peuple sénégalais que ni Tunisie bi nga xam ne c'est un état négrophobe c'est un état xénophobe c'est un état néocolonial tey produit yooyu bi nga xam ne daf koy jaay fii ci Sénégal ñu boycotté ko ndax guerre bi ko aussi guerre économique da ciy bokk ndax euh, l'argent est le nerf de la guerre te bu ñu leen xojee foofu noonu daañu xam daañu reculer en fait. Euh, jar ñu ni benn précision ci ci bi. gis nañ euh, gars yi nee nañ ñoom syndicat bi kii aussi ne maa <laughs> ngi tax ñu kii ko. non syndicat produit produit yoo xam ne. c'est pas un produit c'est pas un produit sénégalais ñoo ko defar ñoo ko. en tout cas c'est pas un produit c'est pas un produit sénégalais quoi c'est pas un produit sénégalais parce que ñun xam nga FRAPP day xeex naan doomu réew mooy tabax réew. FRAPP day xeex di jàppale euh, suñu ay entreprise locale FRAPP day xeex tey pour une souveraineté économique pour une souveraineté alimentaire ku ne xam ne FRAPP li ñu ko xamee mooy càng ci wàllum koom càng ci wàllum culture. càng mooy euh, souveraineté ci ci wolof càng ci wàllum koom càng ci wàllum culture càng ci wàllum euh, mboor muy soir càng ci wàllum koppar muy xaalis donc FRAPP boobu noonu di xeex pour souveraineté di xeex suñuy entreprise étrangère. da ngeen def investigation ba xam ne Jadida. mais Jadida son c'est une entreprise tunisienne donc c'est pas une entreprise sénégalaise. ba mën na filiale sénégalaise mais c'est pas une entreprise sénégalaise parce que loolu ñëpp comme par exemple fii tey filiale sénégalaise Euh, matière sénégalaise nous avons une filiale sénégalaise, mais l'entreprise mère est une entreprise française, comme aussi c'est le cas pour Zadida. L'entreprise mère est une entreprise tunisienne, ce pas une entreprise sénégalaise en fait. Donc nous euh, tous les Sénégalais, encore une fois, au boycott de tous les produits euh, de l'État, fabriqués en tout cas par l'État néocolonial et raciste tunisien. Mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal ci leeral yooyu Moustapha Diop xam naa rek Asel dañuy engagé deuxième. Euh, deuxième partie bi nga xam ne itam deuxième partie ci manam laaj yi ñu ko bëgg a laaj euh, muy euh, loo xam ne indi na coow muy euh, ki fi nekkoon premier ministre Hadjibou Soumaré jot fee wax ne maanaam non dafa laaj ay laaj yu mu laaj njiitu réew mi ndax kii di Marine Le Pen daf ko nekk ab personnalité kon française da ko jébal ndax moom njiitu réew mi da ko jébal ay koppar lu toll ci douze millions d'euros ba coow li fi mu nekk ni sax jógoon na ba mu wol nañ ko ba fi mu nekk nii biir maa ngi. ci loxoy yoon ngeen nekk nag ñoo xam ne dañuy xeex wala bis dañuy xeex bu baax a baax a baax euh, gis nañ ne sax seen xeex maanaam yenn saa yi à chaque fois kii bi ngeen am ci France moo ciy gën a feeñ. France d'abord bu ngeen déggee mbir mi ana lan la def ci yéen. mën naa leeral par rapport ak sa précision mën naa andi précision par rapport ak euh, li nga wax. que France <laughs> ba ñun ñun ñun en fait dañuy xeex impérialisme man nooteel. Mm. nooteel sur toutes ses forme ñun bu frappe. bu France opprimer Sénégal dañu wax France dégage bu États-Unis opprimer Sénégal dañuy wax Dias go home bu Gambie même su su wër bu Sénégal opprimer woon Gambie wax Sénégal dégage. daa mel France dégage moo si gën a fees de. waaw <laughs> waaw naa mën naa ñëw en fait ci loolu naa leeral ci loolu. Mm. c'est-à-dire ñun tout état rek dañu wax ne état bu na dégagé parce que ñun dañuy xeex nooteel mais alliés yi woon dañu war a nangu ne nooteel gi France ëpp maanaam exercice Sénégal moo ëpp moo gën a jéggi dayoo moo gën a fës. et bien vrai que ni dañuy wax Chine dégage parce que Chine aussi am na nootal fii ci Sénégal fii ci Afrique dañuy wax États-Unis jaas boo xam ndax États-Unis am na nootal bu muy def fii ci Afrique mais nootal gi France teg ci Sénégal moo gën a jéggi dayoo moo gën a diis parce que France moo ñuy imposé benn monnaie néocoloniale bu ñuy wax français pas du ñuy privé d'une souveraineté monétaire France moom mooy andi di samp ay base militaire fii ci Sénégal du ñu ak feneen ci Afrique du ñu privé d'une souveraineté territoriale France moom moo ñuy imposer sa culture à travers sa langue du ñu privé la ñuy wax duñu souveraineté France moom moo ñuy de concert avec l'Union européenne moom moo ñuy xam ne moo di ay accord de partenariat économique di di di ay politique économique à son faveur et à notre donc France notel gi mu ànd bi mu teg fii Sénégal moo gën a jéggi dayoo moo gën a diis moo tax ñu wax France dégage mais dañu koy waxee parce que France dégage campagne la woon mais suñu front mi ñu formulé en 2017 pour la souveraineté monétaire France dégage. Okay. mais pour la souveraineté monétaire France dégage boo ko waxee kan moo ñu imposé Sénégal c' la France. Mhm. donc France une campagne bu ñu doon bu pour la souveraineté monétaire France dégage maanaam pour ñu am càng ci ci wàllum euh, xaalis France génnal mais noonu la ñuy pour la souveraineté sécuritaire France dégage pour la souveraineté historique France dégage politique donc pour la souveraineté politique France dégage parce que France moo imposé en fait euh, ma ñëw si euh, proprement dit laaj bi si Marine Le Pen. Mm-hmm. je pense que premièrement dañu war a xam kan mooy Marine Le Pen ak euh, Marine Le Pen lan la doon def Sénégal premièrement d' abord parce que loolu état du Sénégal dañu war a élucider ci loolu Marine Le Pen lan la doon def Sénégal parce que Marine Le Pen dafa ñëw Sénégal à bord jet privé def une visite en catimini accompagné pas accompagné accompagné wul son so parti parti am mu RN mais ci mu àndal ñu ngi koy wax Philippe Bonne la àndal ñëw Sénégal à bord d'un jet privé en visite en visite catamini mhm. le président Macky Sall recevoir ko visite catamini mu ànd ak ki ñuy wax Philippe Bonne Philippe Bonne impérialiste la capitaliste la affairiste la moom la àndal ñëw Sénégal ñëw ci jet privé ci visite catamini Macky Sall recevoir ko en visite catamini deful benn euh, communiqué officiel ci visite boobu noonu déjà loolu c'est suspect benn Mhm. beneen bi donc président Macky Sall daf ñu war a leer ak gouvernement lan la Macky doon wut Sénégal lan lam doon wut Sénégal beneen bi beneen bi aussi mooy mari Le Pen lana doon wut Sénégal d'abord mais bari Le Pen wul sax ñëw Sénégal parce que Marine Le Pen ko xam xam ko si des positions suñu posture xénophobe suñu posture négrophobe mais surtout suñu posture anti islamique Marine Le Pen moom baayam ñoo doon théoriser l'islam du religion waaye l'islam idéologie la Marie Le Pen dafa doon wax ne moo baayam ne lislaam ne musulman yi France c'est des c'est des envahis c'est des envahisseurs donc musulman yi nekk France c'est des envahisseurs mhm. Marie Le Pen dafa doon wax ne lislaam idéologie la te seen drapeau boobu mooy seen mooy fulaar bi seen jigéen ñi di sol mooy seen drapeau noonu mais ku mel ne noonu noonu ak nu bañee l'islam ku mel noonu ak nu bañee noir ak nu bañee étranger de manière générale budul sax ñëw Sénégal ñu fàttali ne ab février bi passé am na benn convention juridique sur l'extradation Marine Le Pen dafa voté pour la u les extrêmes gauches et la gauche ont voté contre Marine la penn dafa voté pour l'extradation euh, pour une convention judiciaire sur l'extradation donc ku mel noonu nga recevoir ko fi Sénégal en catimini loolu insulte la te loolu il faut ñu rappeler que président Sénégal li jaar yëpp kenn amul kenn mu mosul am audace def ko le président Macky Sall est le premier président du Sénégal à recevoir Marine Le Pen ici dans notre palais kenn amul kenn def ko ci président yi fi jaar yëpp te bi c'était pas une visite boo xam ne en tout cas d'après ce que je pense c'est une visite dans le cadre du parti de Marine Le Pen mais parce que Marine Le Pen accompagné wul staff son parti àndul ak waa parti am ñi ki ma àndal mooy Philippe Bon boo xam ne affairiste la kooku déjà capitaliste la il est suspect en peu mu ànd moom ñëw donc Marine Le Pen lan la doon sori parce que ñëw fi en fait pour ay dédicaces livre xaw ma doon def visite ci euh, centre agricole ñëw pour loolu donc a leeral la transparence exige à ce que mu leeral lan la la perte de a leeral parce que Agibou Soumaré dafa poser question mais Agibou Soumaré citoyen sénégalais la nekkoon premier ministre. Aliou Moussa dafa bokk si ñoo xam ne contribuable la daa bokk si ñu permettre président Macky Sall tey jox ko six mille quatre cent milliards ci gafagaam muy budget Sénégal kooku kan moo gën a yella ci mu laaj question président Macky Sall ne ko alal ji jox ndax jox ko si Marine Le Pen nangam combalos as lëf mais président Macky Sall il est dans l'obligation de leeral parce que Marine Le Pen Hadjibou Soumaré adressé la question au gouvernement gouvernement institution la mais le président institution euh, la c'est le président de la République qui doit formuler des réponses claires et correctes sur ces sur la parce que daf ko laaj ci suñu xaalis bi la jox li la nataal su gafaga ndax joxoo ci ajibu suma ci en fait Le Pen euh, sept sept milliards mais loolu mais kan lan moo gën yàlla ci loolu da nga war a tontu président Macky Sall lan lay tëb di dal lan lay tiit lan lay raf lu muy tiit di di porter ak di di di dem di lan lay raf dañ laaj mais ku bàyyi moom xar mi même ku am nga bàyyi buum gi par ma teg sama dara fii ne ana waa sama dara gis leen ko nga ne ma noo boo foon laaj bi xaw niru <laughs> na leeral parce que suñu alal lañ ko dénk ah. mais moomu réew mi six mille quatre cent milliards yi mu yor gi la na leeral président Macky Sall dafa war xam ne du buur ba di muur buum mi président Macky Sall réew mi doon na ko ci ndaayam doon na ko ci baayam dafa ñëw ñu dénk ko suñu alal day leeral na leeral dañ ko dénk suñu alal. ngeen daal kon bu ma déggee taxawaay boobu ngeen. dafa war a leeral ak fii ay bisumaat laaj. ça ne surprend pas ci moom parce que scandale la dëkkee donc dafa war a leeral mais lan mooy lan lay tiit di raf di dem di porte plainte ak di dem di di di di pour pour ban fausse nouvelle lañ fi diffusé fii. daa jàpp ne dañ ko y' a pas de fausse nouvelle ici président Macky Sall dafa bàyyi dafa bàyyi délit d'opinion yi muy jàpp nit ñi léegi weesu na délit d'opinion sax mais il fait des opinions sur les délits maanaam président Macky Sall lu mu lu muy def nii xoqatal la intimidation la. ak bâillonnement la nekkee maanaam fexe naa sàcc naa luwal naa jaay suuf naa jaay kii bi mais bu leen ko wax noppee leen koo wax ma jàppale tëj la koo wax ma jàppale xoqatal la da a xam ne fii Sénégal du réew mu ñu xoqatal le Sénégalais du réew Sénégalais koo xam dañ koy not le Sénégalais weesu na foofu parce que dafa am lu ko jiitu en fait man dafa am lu muy Sénégal tey jii ku nekk dafa am lu muy bàkkoo ci deretam lu muy bàkkoo par rapport ak fu mu jugee kooku dafa am fierté boobu bu nekk ci moom boo xam ne mënoo ko not parce que boo ko naree not day bañ Sénégal bañkat la mos doon suñu maam ba tey donc Sénégal mun ko mun ba day bañ fu mu mën doon président Macky Sall na xam ne réew mi réew mi ñu noot réew mi ñu xoqatal fi bu amee benn ragal ci Sénégal moom la mais on n'a pas peur de lui et de son de sa police de sa gendarmerie ragaluñu ko donc na leeral fu mu dugal askanu Sénégal mais pas ko wax dara tey muy jéem a essayer de de de de de casser toutes les voix discordantes pour lan pour am troisième mandat pour am ñetteelu mandat loolu moo tax ji képp ku wax rek mu jëm journaliste mu tëj. Euh, premier ministre mu tëj maçon mu tëj gendarme mu tëj li mu bëgg a jàpp Sénégal mooy tëj tojee président Macky Sall war xam Sénégal du lido parce que day nekk mag njabootam di lido li muy lido foofu dafa jàpp ne lido lido boobu muy lido tëj naa ko jàpp naa ko lekk naa ko coob naa ko mu jàpp ne loolu lido la war a def Sénégal Sénégal du lido ba muy jàpp di coob tëj ak di tijji def mel ne nekk ci terrain de football boo xam ne da ngay dugal remplaçant génn kii boo jàppee kii bu subaa bu ñuy wax nga jàpp nga tëj nga tëjji ko dugal kii Sénégal du on n'a pas peur de lui et de ses intimidations ça ne passe am troisième mandat du ma am ñetteelu mandat donc ñi Sénégal trois cent quatre et quelques jours moo ko fa dese dafiy jóge lu a xew dafiy jóge donc na bàyyi ñu tëj ak ñu tëj ak xoqatal fii bu amee benn ragal moom la moom mi doon jooy en 2011 naan dañ may tëj dañ may boo mooy ko ragal dugg kaso taxaw ñu taxaw ñu ñu ñu dellu ginnaaw donc kaso mun ñu mun ñu delloo ginnaaw amee ku ragal kaso moom mu doon jooy ci kanamu sëriñ bi naan dañ may tëj wax la jàppale ci war mu tëj moom moo ragal kaso mais on n'a pas peur de la prison on n'a de ces de ces geôles en fait. Moustapha Diop ñu maa ngi leen di jaajëfal euh, yéen ñëpp. Mm-hmm. di am mbégte ñëwaat fii euh, ñëw fii tey di ñaan ñu ñëwaat fii ci jàmm. Euh, di jaajëfal aussi audit téléspectateurs téléspectatrices yi ñu doon topp fépp ci Sénégal ak ci biir réew di wax askanu Sénégal que ni ñu taxaw takku pour faire bloc pour se dresser contre. le projet d'effacement de la démocratie sénégalaise bi nga xam ne Macky Sall ak ñooñam ñu ngi a jëmbal ñu wax sa peuple sénégalais que à chaque fois qu'une dictature a réussi à s'installer à s'implanter c'est parce que la majorité a abdiqué face à une infime minorité qui a su les sous peur parce que rien ne résiste rien ne peut résister devant la volonté et le courage d'un peuple et le courage comme disait Mandela c'est pas euh, l'absence de peur mais la capacité de vaincre sa peur donc disons au peuple sénégalais de résister face à l'oppression de résister face à ce projet massifique de la démocratie sénégalaise mais de résister surtout au troisième candidature illégale et légitime président Macky Sall maanaam 2024 ñëpp ay bokk am des Macky Sall mu 2024 du bokk du bokk du nekk candidat te du bokk te dañuy abal incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. jërëjëf jaajëfal rek kon ci euh, leeral yu am solo yooyu nga xam ne indi na ko di jaajëfal suñu cadreur Abdel. di la jaajëfal yow it soxna Asel di jox di daje kon mbokku internet yi. si beneen numéro euh, Yoor Yooru Sénégal. jërëjëf bu Moustapha Diop ñu di la jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi di jaajëfal également internautes yu ñu doon suivre à travers Sene Info International yéen a ngi woon ci seen yor-yoru Sene Info xam naa dañ leen di jox dig daje. voilà jërë ngeen jëf. Restez toujours informés sur Sene Info. xibaar ci bile jamono restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yi wóor te ci bile jamono fi la mburu bi tàngee gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wóor te leer ci bile jamono